alhamdulillahi alladi an'ama ala albashariyati walbashar bi bi'athati sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama ila xayri ummatin uxrijat linnaas wa bi xayri kitaabin yahdi lilati hiya aqwam summa alsalaatu wassalaamu ala man huwa manbaun lil ulum wa markasun lil fuhum sayidina wa mawlana muhammadin il maalum wa man tabiahum bi ihsanin ila al waqtil euh, mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn leerak ak jamono di ko leerlo muy rajo télévision bu wal fajri yéen ñëpp maa ngi leen di boole nuyoo bi ñu yàlla boole ci juróomi baatam yi ngeen miinoon ñi miin ko di juróomi baat yoo xam ne yàgg ak jamono du ko tax a xewi bari luñ koy joxante du ko tax a sàppi mu ëmb jàmm yàlla ju amul àpp ak yërmandeem ak barke nuyoo boobu laa tibbee sama xol jëmee ko ki seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di del siwaat ci kartanal yàlla fas yéene ànd ak yéen seen émission bi di fatwa ngeen baax ko am guddeeg ajuma gu jot ci waxtu wi ànd ci ak seen mbokk seen karit al oustaz Xasan Diouf ci wàllu laaj yi tey nag euh, al oustaz Xasan Diouf la ñuy dalal mu indil ñu benn mawduu bu ñuy tuddee al islaam wal uxuwa islaam ak ak mbokko naka lako ko lislaam gisee ci mbokkoo gi ak mbokko yeeg ni mu fasantikoo mbokkoo ci diine am na mbokkoo ci deret am na mbokkoo sax ci li nga xam ne yenn ci bokk du yëngatu am na waaye mbokkoo ci réew wala ci dëkk wala ci gox yooyu yëpp maanaam ci mbokk yi la bokk xasan ñu bàyyi la ci ci wàllu woowa. Euh, jërëjëf oustaz ñu ngi lay euh, nuyu di nuyu mbokk yi ñuy seetaan euh, di ñu déglu oustaz Hady ni nga ko waxee noonu la mbokk dafay bari ay façon waaye ba ca a am solo mooy mbokk diine. Hmm. ndax mbokk réew ko bokkalul réew bokkul. mbokk benn mbootaay ko bokkalul mbootaay boobu bokkul. Hmm. mbokk benn waaso wala wàllu géño koo ci bokkul rek bokkul waaye mbokkul lislaam bi dafa bëtt miir yooyu yëpp mu jokkale hmm. moo jokkale jullit bi nekk tey Oustaz Hady fii ci Ndakaaru hmm. ak ba nekk fële ca Jakarta hmm. moo jokkale sénégalais bi ak indien bi moo jokkale ku ñuul ki ak ku weex ki moo jokkale ñu bépp ñooñu nga xam ne dinañuy tase ci wetu kaaba gi di wër nga xam ne loo leen bëggoon boole rek dina am lu leen teqale loo xam ne loolu du mën a nekk. Mhm. ndax sax seen bëgg-bëgg daf lul bokk. Mhm. da ngay gis koo xam ne dafay jàpp ne dafa tàng ak koo xam ne dafay jàpp ne dafa sedd. Mhm. am koo xam ne mu lekk ya muy lekk du bokk ak kële. kon mënoo seet lenn loo xam ne mën nga leen ko bennal ñooñu lu dul rek muy benn euh, uxuwa diiniya boobu muy benn ci wàllu diine. te yàlla subhaanahu wa taala loolu la loolu la wax. dafa tënk mbokk yépp ne jullit ñi daal ay mbokk lañu. innamal mu'minuuna ixwatun jullit ñi daal duñu dara lu dul di ay mbokk te ustaasaat yi baat bi li muy firi ci wolof loolu lay firi rek mooy ne da ngay moom bëgg bëggal ko lu baax ni nga ko bëggalee sa bopp bañal ko lu bon ni nga ko bañalee sa bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat itam ne jullit boo gis koo jaakaar loolu muy jullit ngay jullit sa mbokk la al muslimu axul muslim bu euh, jullit mbokkam mooy jullit waaye ustaasaat yi moomu dañ koy dundal dañ koy dundal ci wax hmm. dundal ko ci jëf hmm. euh, mag ñi daan wax ne yiy defar mbokk yëpp benn saxu ci kawar hmm. làmmiñ ci la bokk tenq ci la bokk ndëggu itam muy suufu tànk ci la bokk kon yooyu yëpp euh, mbir la yoo xam ne euh, yu jara itteelu la boo fekkente ne da ngay joxe ngir mbokk defaru defal loolu bu fekkente ne da dox wax ba mbokk defaru waroo ko sàggane waaye Oustaz Hady tey bari na loo xam ne Euh, lu ñu waroon def la ci mbokk ñu bàyyi ko moo tax mm. euh, jafe-jafe am ci wàllu société bi mm. euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nettal nañu benn xadis ne yàlla bi mu bindee raxim mm. muy mbokk bu aju ci wàllu gaño ndax iteel na yàlla yàlla mbokkum deret nee na bi ko yàlla bindee mbokk dafa jooy yàlla ne ko looy jooy mu ne dama ragal ñu dagg ma mm-hmm. yàlla ne garantil naa la ne képp ku la dagg dinaa la dinaa ko dagg képp ku la jokk dinaa la jokk kon jokkale ay mbokk ci jaamu yàlla la bokk ci ibaada la bokk ci li li taxawal askan ak société mu dëgëral ko ci la bokk ndax société hmm. euh, kenn mënul tabax taax taax moo gis hmm. dafa am ku jàpp keneen jàpp ca wet ga hmm. kooku nag ci jamono jooju ñooñu ay mbokk lañu ki nga bokkal oto sa mbokk la ndax yéen bokk jëmuwaay ki nga bokkal euh, société bi ngay liggéey kooku sa mbokk la ci wàllu woowu. Mm. léegi nag war nga def ba nga xam ne sa devoir ci yow sa waru sa warugar ci moom nga def ko waaye itam sa droit ci yow ci euh, ci yow moom mu def la ko. Mm-hmm. bu ko defee takkaamul boobu mëttalante boobu mooy tax société taxaw ndax société balaa muy taxaw kenn ku ci nekk dafay nekk brique bu dëgër. Mm-hmm. bu ko defee ka nekk ci sowet nekk birig bu dëgër bu ko defee bu ngeen bu ngeen jàppaloo mm-hmm. tàppaloo ci ci loolu ngeen di amee société boo xam ne bu bu dëgër la kon al uxuwa muy mbokkoo ci ci ci lislaam mhm. euh, dafa war a nekk loo xam ne luy euh, law la amul frontière comme ni ma ko junjee mhm. euh, tey oustaz Hadi léeg-léeg nga dégg koo xam ne dafay naan war nañu sant yàlla ndax lay xew ca réew tel mhm. xewul ci suñu réew te fekk réew moom mu cité dafay nekk di réew jullit waaye fekkonte ne gu lislaam lay waxee bu boobaa du wax loolu ndax boo déggee ne tey jullit dee na fële ca Jakarta wala ca Indonesia. Hmm. wala ca Inde. loolu war na la metti comme nu mu la mettee bu fekkonte ne jullit boobu senegal la dëkk. Hmm. loolu la mbokkoo ci jullit di def te leneen mënu koo def lépp lu ñu taxawal loo xam ne pour bennale la. te jaarale ko ci loolu rek dina am lu des wala dina am ñu des ñoo xam ne duñ ca bokk. Hmm. kon euh, bu yàlla ne innamal mu'minuuna ixwatun jullit ñi duñu dara lu dul mbokk. bu boobaa mbokk moomu tey war nañ ko def institution boo xam ne ci la ñuy dundalee suñu société yi waaye itam ci la ñuy euh, taxawalee loo xam ne képp ku sonnati rek euh, dina am fu muy dem pour pour pour pour euh, mën a di suqaliku Oustaz Hady am na ay réew tey yoo xam ne hmm. dundal nañu mbokkoo boobu ba dugal ko ci wàllu ay institution hmm. ñu taxawal lu mel ne ay dawaawinu zaka boo demee ci yenn réew arab yi am na hmm. dañuy taxawal benn organe boo xam ne képp ku am azaka da nga ko fay indi. Mm-hmm. teg képp koo xam ne itam soxla na ndimbal loo xam ne mën na génnee ci azaka boo demee. Mm-hmm. dañ ko def ay département comme ni ko yàlla waxee juróom-ñett yooyu innama sadaqaatu lil wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqa wal gharimin wa fi sabilillah wa ibni sabil juróom-ñett yooyu mm-hmm. benn bu ci nekk am département am nga xam ne foo dem rek di nga fekk ñu mën la dimbali te loolu yëpp euh, balaa muy mën a am dimbale sama mbokk ci jaamu yàlla la bokk. Mhm. dimbale sama moroom ci jaamu yàlla la bokk. Euh, ndax am-am balaa muy tudd am-am il faut muy toxu. Mhm. kii dafay ne mbokk am. Mhm. keneen ne am waaye bu fekkente ne am denc la bu boobaa dootul tuddati am am. kon yooyu yëpp nag li koy dëgëral ci société mooy al uxuwa al islamiya kon euh, Oustaz Hady yaakaar naa tomb boobu nga tànn tey tomb bu am solo la macha allah euh, jërëjëf al Oustaz Assane Diouf ci leeral gu am solo googu wane nga ne e, mbooleem xeeti bokkoo yi gudul lislaam rek am na frontière ba mu moy mbokkook lislaam moom amul frontière e, ki bokk ki bokk fii nekk ci Afrique am na lu ko lëkkale ak mbokkam jullitam ma nekk ca Amérique moo xam ca chimal wala ca janub ka nekk ci Asie noonu ka nekk ca Europe noonu waaye sax seen frontières yi passé na foofa xasan koo mun a bokk ak te bokku leen ci lislaam seen àndooga mu ngi yem rek ci àdduna waaye bu dee xasee am rek lislaam day ñëw séparé ren hmm. sa ndey la sa baay la sa doom la sa soxna la hmm. fi lislaam njëkk a taxaw pour séparer leen mooy dootu leen mën a doonanteeti hmm. ab julit mënta doonn ku dul julit ku dul julit mënta doonn ab julit ñaareel bi tamit dana leen séparé euh, dana ci wàllu defar ga tey koo mënoon a bokk bu dee xasee am te duwul jullit yow amoo droit sangu ko amoo droit sàng ko amoo droit suul ko moom tamit amul droit defal la ko su boobaa nag moom soo demee ba ragal ne dana yàqu mu ngi nar a euh, xeeñ ak li ci aju charia day wax ne ñëwal nga defal ko mu waaraat mu waaraat nag ak daf nu duñ benn mooy gas ba mu xóor rek nga dugal ko ci biir mu tànk ya jublu baax na muy denc goo xam ne sang jiituwut ko sang jiituwut ko jullee jiituwut ko jubale ko xibla tamit jiituwut ko kon gis nga séparation bi lislaam andi bi ci tegu tamit su ngeen demee ba dekki am du ngeen bokk fu ngeen di dekkee soo leggee tamit ca péncam yàlla ma du ngeen bokk fu ngeen di taxawee nu ngeen di taxawee naka noonu tamit bu ngeen demee war a jël seen losement ya yéen du ngeen bokk fu ngeen war a nekk kenn ku nekk yàlla na ko séparé ci losement wu boppam kon nag waaye mbokkoo gi nga xam ne lislaam moo ko lar rek mooy ànd fii ci àdduna àndin wu rafet continuer ànd gu rafet ci barsaq continuer dajee bis penc mu rafet ngeen continuer dugg aljana continuer foofa tamit di ziarante ca mbokk googa kon loolu mbokk gën a dëgër daal mbooy mbokk ak tabaarakallahu ak gis nga tamit mbokk ak lislaam googu yonent bi wax na ci ñaari hadis yu gàtt yu jara bàyyi xel dafa ne jullit ñi daal niñ war a jàppantee ak niñ war a jàppalantee dafa war a mel ni tabax rek al mumin lil mumin kal bunyaani yashuddu ba'duhu ba'dan xam nga loolu waxin wu sew la xam nga tabax bi tey nga mën a dugg ba bu naajee doo ko yëg bu yàlla ji tawee nga mën cee seelu euh, naka noonu bu seddee boo ci duggee tamit doo ko yëg ay matière yu wuutee yu bokkut yu ñu boole la matière yooya ndox nga ca suufa nga ca ciment nga ca béton nga ca fer nga ca demeet yooyu yëpp boo leen dàqee bokkuñu yu yonent bi na bëgg a wan ne ñu bokkut ñoo mën a bokk jàppoo ba mën a fegal nit ki tàngoor wala ñi mën koo fegal sedd wala ñi mën koo fegal taw kon yéen ñii bokk nag wax dëgg yàlla war ngeen a mën a jàppoo war ngeen a mën a jàppalante ndax kullukum min aadam te wa min turab gannaaw bi leen aadama moom bokkee tamit ngeen bokkoo tamit maanaam ci diina ji nga xam ne moo ñëw boole leen ne jàpp leen ci te leen ngeen bokk bennoo ca ngoyin nga te bu leen teqalikoo ca ngoyin nga mm. ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafaraqu mm. kon gis nga loolu mbokkoo gu dëgër la beneen bi tamit mu ne maanaam mathalul muminina fi tawaadudihim wa taraxumihim wa taatufihim ka mathalil jasad isa staka uduwun minhu tadaa sairul jasadi bi sahri wal huma aw kama qaal mu ne jullit ñi daal niñ war a bëggantee niñ war a soppantee niñ war a ñëwantiwantee da war a dafa war a mel ni jënn jëmmu ni mel xam nga jëmmu amul pet lu cay métti rek jëmmu ji lépp daanaka da koy yëgandoor te gis nga jëmmu tamit ni mu mënee dimbale moromam ci solidarité kenn mun la ko wax tey xasan boo kenn ci ñun tànkam doon métti rek du xëy si boo xëyee gisoo ko ci wal fajiri nga ne ko yow tey gisuma la démb di mm. mu ne sama tànk moo doon métti tànk buy métti mm. lu ci yoonu làmmeñ waaye làmmeñ ñëw ne danaa ko dimbali du ma wax nopp ne déggatuma bët ne gisatuma loxo ne yëkkateetuma beneen tànk beneen tamit man doxuma kon yooyu yëpp day dimbale mm. biir di métti tamit tànk ñoo participer ne man du ma doxi dem fenn bët ne gisatuma tànk tamit loxo tamit ne yëkkateetuma yonentu bi nag nekkoon daal seen ak njulit balaa gën a mën a wér dëgg dëgg mooy ni jëmm jooju mel tabaarakallaahu kenn ku ne bi koy cër di métti ni mu participé noonu ngeen war a a mel moo tax mu ne laa yakmulu imaanu ahadukum xataa yuhibba li aqi maa yuhibbu li nafsihi hmm. foofu ci beneen riwaaya bi kenn ci yenn ak ngëmam du mën a mat mukk fii sax dafa ne kenn ci yéen du mën a gëm lu dul lim bëggal boppam da koo bëggal moo mbokkam xasan nag nit ki lu mu bon lu baax rek la bëggal boppam nit ki lu mu bon safaan ba rek la bañal boppam fekk nag yegguloo ci martaba boobu ci maqaama yooyu rek su boobaa maanaam sën njulit maanaam des na kon Xasan mbokk lu ama am doole la. lu am lu am solo la mm-hmm. euh, Oustaz Hady boo seetee euh, ñi entourage yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko waroon. Mm-hmm. da nga fay fekk Suhayb ar-Rumi mm-hmm. nga fekk fa Bilal al-Habashi nga fekk fa Salman al-Farisi nga fekk fa Abu Bakrin al-Arabi ñi nga xam ne daal boo doon seet fa ñu dëkk kilomètres yaak ñu mel noonu dafay bari waaye terewul benn pas-pas tënk te mooy pas diine nga xam ne am na xare boo xam ne ba ba nga xamee ne saxaaba yi blessé nañu. Hmm. ba am ku leen di jox ndox. Hmm. ñu koy awante. Hmm. kenn ku ci nekk yaakaar ne sama moroom moo ko gën a gën a soxla. ba ñoom ñëpp ñu deeandoo te fekk bu ñu naanoon ndox ma sax xëy na du ñu dee. kenn ku ci nekk ci jamono ju metti jooju danga koy ko yéene sa morom. kon yooyu yëpp dafay wane ne al uxuwa al islamiya lu am solo la te boo seetee. ba euh, saaru tabbat yada abi lahab xam nga. kenn gënul bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Lahab mm-hmm. waaye bi mbokkoo diina ba daggee rek mm-hmm. yàlla dal di indi saar woo xam ne mm-hmm. mën nga wax ne mën nga wax ne sax eh, jaar na fu fu fu fu fu bon foo xam ne eh, Abu Lahab la wax tabbat yada abi lahab wa tab maa agna anhu maaluhu wa ma kasab Abu Lahab perte na lépp lu mu am perte na Mm. ndax li ko li ko ko perteloo mm. mooy dafa ñàkk benn buum bu am solo boo xam ne mm. mooy buumu pas-pas nga seet loolu rek kon lu am solo la Xasan euh, mooy gis nga mbokk ak doole gi am am gi mu am doole moo tax gis nga yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee Madina li mu njëkk a def mooy bokkale diggante muhaajiriin yi ak waa lansaar euh, muhaajiriin yi bi ba lislaam juddee ñoom ñoo ko bàmbaane di ko yar waaye muhajirin yi mu waa lansaar yi tamit ñoom ñoo leen dalal hmm. suqatal ko ñoom tamit ba ñu ñëwee nag yonent bi tànn ñeen fukk juróom ci muhajirin yi hmm. bokkale leen ak ñeen fukk ak juróom ci waa lansaar yi hmm. gis nga mbokkale googa demoon na ba ku ci amoon ñaari soxna day bëgg a fase kenn ki bëgg mu jàpp yedd bu paree mu jox ko moromam mi yeggoon nañ ci ku ci am ñaari mbubb summi sa menn mbubb mi jox ko sa moroomam ku ci am ñaari néeg noona ku ci am ñaari kër noona ku ci am ñaari tool noona ba ñu bëgg nag ku ci am ñaari soxna bëgg ko fase nag yàlla nag wan leen ne yeggut foofa nag hmm. gis nga loolu tamit yàlla tagg leen ci ba ne walladina tabawwa'u daara wal imaana hmm. min qablihim na man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim haajatan mimma utu hmm. wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa kon xam nga xasan loolu lu ama ama am doole la ba tax na yonent bi loolu la ñëw suqatal ko jëmbatal ko hmm. wane ne daal mbokk gi gën a dëgër ci mbokk yi mooy mbokk ak lislaam waaye nit ki bu ngeen bokkee ndey ak baay te bokku leen pas-pas hmm. dëgg-dëgg bokkatu leen dara te oustaz Hady boo seetee sax ci lislaam gi hmm. xam nga yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy dem Madinal Munawwara la mu fa fekkoon mooy aws ak xasraj ci xeex rek waaye loolu fexe na ba changé ko mu tudde léegi muhaajiroon wal ansaar euh, ñu gàddaay ak ñi leen dimbali waaye nekkatul léegi mbiru aws ak xasraj euh, hmm. mooy ñaari xeet yoo xam ne xeex nañu ay ati ati euh, ñoo bokk benn maam hmm. ñu leen daan tuddee seen maam ñoom lañu boo leen hmm. boolee ñoom ñaar la ñu tuddee banu xaylata euh, waaye terewut li ñu xeex ci kenn xamul dafa faat ci bakkan kenn xamul ni mu ni mu toll bi yonentu bi ñëwee fexe ba jubale leen tuddee leen ansaaru diin ñu nekk ca loolu di di liggéeyal diine liggéey joo joo xam ne ni ju rafet la xasan Euh, kon euh, muy euh, tomb yu am solo mm-hmm. oustaz mm-hmm. yoo xam ne mm-hmm. jar na incha allah beneen yoon ñu gën cee ñëw pour nit ñi mën a ndax jafe-jafe yi ñuy dund ci suñu société bi nii lu ci bari ñàkk mbokkoo moo ko waral waaye bu fekkante ne lépp lu waay am rek nga bokkoo ko sa moroom bu boobaa yu ci bari ci ay jafe-jafe dina dina disparaître ci ci ci société bi waaw li ñu yàlla séddale daal li yàlla wàccee ki ñun ci war ñu koo séddoo doy na waaye niñ ko séddalee moo baaxul. Mhm. soo moom la ñuy tuddee soo taqsim. waaw am na borom xam-xam yu si doon gastu sax ñu ne. Mhm. li nekk ci richesse ci adduna bi. Mhm. boo jëloon ñi nga xam ne génn nañu àdduna ak ñi nekk ci kaw suuf ak ñi war a ñëw fii ba junniy at. nga defandoo leen ci kaw suuf yëpp mm-hmm. richesse bi nekk ci kaw ci àdduna bi nga séddale leen ko mm-hmm. kenn ku ci nekk dina am loo xam ne dina ci mën a dund junni at te du jeex waaw waaye euh, niñ ko séddalee moo ak ñàkk liggéey ba itam muy li doon waxtaane semaine bi passé mm-hmm. ñàkk liggéey pour wala xala jëfandikoo sa xel pour trouver ay moyens yoo xam ne ci ngay mën a avancer sa société xasan yàlla dara manqué wut ndax nee na wa qaddara fiha rizqataha aqwataha fi arbaati ayamin sawaa lisaa'ilin kon nag loolu yëpp suñu yaafus la ak suñu ñaawe nu ñu ngi ñaawee nuñ séddalee rek la mm-hmm. ah, jërëjëf Oustaz Hady kon ñu ñëw ci ñaareelu xaaj bi Oustaz Hady laaj bi fi njëkkan ñëw tey kii daal dafay laaj nee na ndax nit ki mën na takk doomi doomi mbokkam bu jigéen xanaa ma ko pour nit ñi mën a comprendre. Mm-hmm. nit ki daal dafa am ku muy labat jabar euh, takkoon na ko bi pare ah ba ba sëy après jib ci mu ñu laajte nag mooy ne dafa takk doomi doomi mbokkam bu jigéen. xam naa ko ci waaw xasan loolu moom daganut euh, dafa mel ni euh, doomi jarbaatam rek la takk. Mm-hmm. sa jarbaat mënoo koo takk mënoo takk tamit sa. sa sa doomi jarbaat mënul takk sa doomaati jarbaat lu mu sori sori sa mbokk moom bi mu xaraamee nga takk ko rek la xaraam nga takk doomam doomam gi sa jarbaat la booba tamit la takkaat doomam ja muy sa doomi jarbaat noonu lay continuer ba mu dem kooku alquran xaraamal na ko ci wa banaatul uxti bam ne wa banaatul uxti rek lépp lu génnee ci uxtu booba lu mu sori sori rek loola dafay xaraam su fekkee takk nañ ko mañ bu ñëboo ñu tas ko suñ ko tasee nag sharia day laaj ndax moom kooku ñu takk mook jëkkër ji wéet na ñoom buñ ne wéetaguñ ñu ne kon dara waru ca amul yeddawu amul dara suñ ne nag wéet nañ ñu ne kon fokk dana yeddawu yooyu laablu laablu googu nag mooy yedd ñoo am atte moo tax ma waxee ko noonu fekke fekkee ku gis deret la ñetti deret lay laablu su fekkee ku gisagul deret ngir ak ndawe la ñetti weer su fekkee ànd ga jëlee na ca ëmb kon fokk mu teqalikoo gi taqoog moom ci lay door a jeexal wa ulaatul ahmaali ajalahunna an yadana hamlahunna hasan hmm. jërëjëf Oustaz Hady kii itam dafay laaj nee na daf doon julli Euh, jullik ñeenti rakka waaye bi mu amee ñaar rakka rek mu taaya dal di juum dem bay sëlmal door a fàttaliku ne ñaar rakka la maanaam dem na ba wax as baatu as assalaa bi mu yemee ci assalaa bi daal la door a fàttaliku ne des na yeneen ñaar rakka mu jóg indi rakka yooyu muy laaj nag ndax loolu dañu koy jàpp ne dolli na dara ci julli gi wala déet mu war a sujjóot wala déet. Xasan euh, waaye. fuqahaawu maaliki yu ne yi dolli dañ ko gisee muy ñaari xaaj képp koo xam ne li nga dolli ci julli gi dafa bokk ci xeeti julli gi te asalaamualeykum ak allahu akbar ak sabbaal ak saar ak yu mel noonu ca julli la bokk ca xeetu julli ga la bokk ñoom dañ ne kon doo ko sujjootal ñenn ñi ne li nga dolli su bokkee ci xeetu julli gi waaye bokkeewut ci fi ñu ko dollee ndax ñaari rakkaa kenn du fa sëlmal kon su boobaa tamit da ngay sujjoot ba'da salaam ndax yokk la moo tax daal li gën a limtu te gën a wóor na indiwaat yeneen ñaari rakkaa mu taaya sëlmal root su joot root su jootaat gannaaw bi mu toogee ci diggante bi ba ci cëram ya dal mu taaya taayawaat day taayawaat noonu bu pare noona mu door a sëlmal kooku mooy dafay def lu ñu tuddee baxda salaam baxda salaam nag gannaaw bi nga sëlmalee fokk da ngay root su joot toog bu paree nga sël nga nga nga rootaat su jootaat toog baa mu waat taaya ga door a sëlmal xasan hmm. jërëjëf oustaz Hadi kii benn soxna la soo xam ne daf doon yore dund kër ga maanaam la ja jëkkëram waroon taxawee moom muy génne alal di def mu dem ba nag di war a fayeeku loolu ci euh, borom këram mu ne ndax war na ko ko fay mu war a nekk bor wala dañuy naan yaa ko ci def kon jeex na famille bi la. waaw Xasan su fekkee jëkkër ji dafa ñàkkoon amul dépense moom soxna sa di góor góorlu ut dépense di dundal boppam. waaye yóbbuwul ko ci yoon ba ñu yoonal lum koy war a jox par weer gannaaw waaye loolu amu ci daal kon bu yàlla dogalee soxna si jëkkër ji woomal du ko fay loola su fekkee ne nag jëkkër gi ci boppam woomaloon na mais moo bañ a joxe dépense soxna si topp jox ma jox ma mu bañ ba mu utal lum dundal boppam kooka gannaaw si gi même bu ñàkkee yooye fan yooye yëpp wala weer yooye yëpp wala at yooye yëpp ay dépense la yu aju ca loosam war na ko koo fay su ko ko jéggalul moom soxna si bu yowmal xiyaamee balaa jéggi siraat dana ko ko fay kon ñaari rek moo ci mën a am ba nga joxe ga dañuy laaj la su fekkee ñàkk la woon te yoon yoon a lut ne lii la la war a jox demal nga toppatoo sa bopp wala la lebal kon nag bu woomalaatee du ko jox dara na ko def muy ak jaamu yàlla su fekkee ne nag bi mu ñàkkee yoon yoonal na ne lii lañ ko war a jox par weer wala par bis kon nag bu demee ba woomal dafa war a fay loola su fekkee tamit moom woomal na waaye moo bañ a joxe yoon yoonal na yoon yoonalut yëpp même bu ñàkkee dafa war a fay loola wa in asara baada yusrin falmaadi fi zimmatihi xasan hmm. euh, jërëjëf oustaz Hadi kii itam dafay laaj nee na loolu xew ci jamono nga xam ne dañuy teg benn marchandise ñu ne acca kan moo ci mën a def prix am ku wax am ku tegaat dara ci loolu ñuy teg ba kay mujjee jël ko mu ne ndax loolu dagan na wala daganul waaw moomu njaay su fekkee ñii fay prix yëpp dogu nañ ngir jënd muy jongante ci piri kii fay naa dix mille kii ne douze mill laa fay keneen ne fay naa treize mill kii ne quinze mille te ñoom ñëpp dëgg la ci ñoom ñu dem ba seet ki gën a sori ñu jar ko koo jaay kooku dara néew ci dagan na waaye su fekkee ne nag kii wax naan fay naa dix mille kii ñëw ne fay naa quinze mille li coow liy bëri bëri kenn rek kay jënd wala ñaar rek ay jënd ñi ci des ñëpp dañu sóobaate comme carte yi ñuy carte su boobaa loola moom dafa xaraam dañ ko tuddee eh, maanaam jaayam najsu bayu najsi la koy fuqaawu yi di tuddee mm-hmm. moom a njaay dafa xaraam ndax xoor da caa nekk ñii dañuy xëbal pour gaa yi dugg rek mm-hmm. eh, tabaarakallaahu ñu fexe ba ñëpp dugg waaye ñoom fekk na ñoom nekkuñ ca biir mi ngi mel ni rek ni ngi mel ni suñu mbokki apprenti yi car rapide yi wala yi ni ngi def xam nga bu ñu ñëwee ndeysaanam danañ fexe wàcc yi dugal ni ñëpp ci oto bi ba ñëpp dugg au lieu que ñoom ñu toog <laughs> waaye dañuy nekk ca biti Mm-hmm. léeg-léeg tamit nit ki ci wàllu diina def noonu dana waar nit ñi waxtu jot mu fexe ba ñëpp dugg moom mu nekk ci biti mm-hmm. loolu tamit maanaam baaxul xasan mm-hmm. euh, jërëjëf kon yooyu jar na xool Oustaz kii dafay laaj nee na benn waay la boo xam ne xamul ni sangoo léegi nag mu dal di euh, fekk ci wetu géej la nekk rek mu dal dugg ci géej gi sangu noonu ba mu kii rek comme sangu set mu ne ndax bu boobaa sangu boobu dafay wér wala déet waaw xasan euh, su fekkee bi muy dugg ci biir géej gi yéene na ci sangu mooma yëkkati toj mu mag mi nekk ci moom te mooy janaba ji sangu mooma dana wér te soo jugee sax ci sangu mooma mën naa dem mu julli ji saamu jàppaat comme rombale na ciri njàpp yépp ci biir sangu mi rek yéeneeg toj mu mag mi dafa yóbbuwaale toj mu ndaw mi waaye nag sangu wax dëgg yàlla janaba jafewut ni mu sonnee ba mën a xam ni ñu dugalee sa crédit bi ci portable bi mhm. mën a xam bonus bi mën a mhm. xam message yi message yi ñu la envoyé genn wàllaati genn wàllam boo ko defee xam ni ñuy sangoo te mooy raxas sa loxo yi ca biti ndox ma buy xëy rek dugal ko ci yonentu bi nee na sa loxo yi kenn xamul ñu fanaan moo tax kon ca biti ma nga koy raxasee su paree nga daree sa jumbax ba ci say bët woom kanam ak gannaaw lépp nga raxas ko ba mu set bul bàyyi dara jàpp njàppal benn benn cir bu ne benn yoon gannaaw bi nga masaayee bopp koro koro nopp tànk tooyal sa loxo yi rek du mu jaarale ko sa karaw ba bu turu yi nekkoon yëpp mën a tëju nga door a nag tànk sa loxo yi ba mu fees ki ndox nga sotti ko sa bopp bi tàpp ko def ko ba muy ñetti yoon léegi nag boobu dina tooy xepp nga xaaj wàll ak ndeyjoor yóbbuwaale nopp ya yóbbuwaale sa xar-xaram bi yóbbuwaale mbagg maag loxo ndeyjoor bi yóbbuwaale faar ya ak tànk ya nga jël tamit càmmooy bi def ko noona su boobaa sangu mi mat na njàpp li mat na fekkee sa konk xonk loxo bi ci biir ténk ya ak cat baaraam yeeg biir baaraam yi laalaatul sa kanam gannaaw njàpp la loola mën nga caa julli saa nga jàppaat xasan Mm, jërëjëf oustaz Hadi kii nee na daal li koy faral di jaaxal bu fekkente ne dafa ñëw ci julli jullik ñeenti rakka mu tarde ba benn rakka rek la cay am julli ga jeex nee na mu koy fayee daal lënt ko mu bëggoon nga leeral ko. li mu koy fayee buy ci mazhabu Malik à peu muy euh, julleeg geexe rakka bu mu jiba la jot kon saar rek la jot lay tekki. kon bu imaam sëlmalee na jug mu jàng fatih ak saar ca kaw toog taaya mooy ñaareelam bu ca bàyyee ko indiwaat beneen fatih ak saar ca kaw jugaat indi fatiha rek su ko defee léegi julli ga wér fatiha ji rek nag da koy yeelu loolu mazhabu malik bu fekkee abu xanifa la nag moom bu paree day gannaaw fatiha ji rek la jot su jugee day indi fatiha rek tamit ci rakkaab ñaareel ba toog foofa taaya su paree jug nag indi fatiha ak saar jugaat indiwaat fatiha ak saar door a taay sëlmal waaye buy mazhabu malik moom déedéet su fu imaam sëlmalee rek mooy sa njëlbeenu julli nit ku nekk nag njëlbeenu julleem fatiha ak saar la cee war a jàng hmm. buy lu ñuy biral da ko war a biral buy lu ñuy yeelu da ko war a yeelu moo tax kon ba imaam sëlmalee rek yow benn rakkaa nga am jugal nga indi fatiha ak saar toog taaya jugaat indi fatiha ak saar su ko defee léegi door a indiwaat fatiha rek mu mel na julli boo seetee ñaari rakkaa yi nekk ci pegg bi ñoo nekk fatiha ñaar yi nekk ci digg bi nekk fatiha ak saar xasan noonu lañ koy defee hmm. mu nekk ne na mu la rawee rek hmm. noonu nga koy fayee nga koy mooy mata bu malik euh, jërëjëf oustaz Hady kii itam euh, dafay laaj nee na euh, ndax koo xam ne dafa amee ay bor mu génn àdduna dañ koy jullee wala duñ ko jullee nee na daf ci doon tekk mbokkam yi xasan yonantu sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni woon ci ñun daal yàlla da ko togg sant ko mu jullee jullit ñi jullit ñi rek la ko wax ne ko jullee leen tere ko nag ne ko bul jullee ku dul jullit ñi kudul jullit ñi kaafir la bul jullee ku dul jullit ñi mushrik la bul jullee ki dul jullit la bul jullee wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabrihi euh, comme jullit ñi la wax nag jullit mooy koo xam ne tudd na baatu seede bi gëm ko di julli julli juróom yi di pratiquer l'islam lam ca man luñ ko digal mu def ko lam ca man la ñu tere mu bàyyi ko kon nag dañ ciy déggee ne am bor terewut a nekk jullit ñàkk bor tamit taxut a nekk jullit kon nag jullit nga donte amee nga bor wax dëgg yàlla dañ laa boo génnee àdduna dañ laa war a jullee charia hmm. li mu bëggoon nag boo génnee àdduna ba dañ laa ñëw di la indee ci julleekaay ba nañ régler say bor su fekkee bàyyi nga fa lu ko mën a fay ñi fay ko ba lañ laa jullee su fekkee bàyyiwuloo ko fa euh, na am ku jël garante ci famille bi ci askan wi ne moom mooy fay ya su ko defee léegi bu ko mënul mu ñëw ba ci fi ñu jullee tamit mu jël fa garante booba euh, loolu sax bi ko yonent bi daan def ko ko amul moom si boppam mu jël garante moo daan fayal ku amul bor ci am niiw maanaam borom ya su ko defee kon nag loolu dara mën nañ koo jullee ndax jamono ji soo ne woon ku amee bor kenn du la jullee ah kon commerçant yeeg homme d'affaires yeeg dana bëri ñoo xam ne tabaarkàlla <laughs> ndax bu ñu jëlee pere bu jeexee rek nga jëlaat beneen kon loolu xasan dana xaw a doy waar kon daal yonent bi dañ koo togg mu jullee jullit ñi te bañ a jullee ñu dul jullit am bor nag terewut a nekk jullit ñàkk bor tamit terewut a taxut a nekk jullit Xasan. Hmm. Euh, jërëjëf oustaz Hadi kon ñu euh, tëjee ak euh, laaj bi kii dafay laaj nee na ndax koo xam ne dafay jëfandikoo ay ay garab médicament daal pour yokk yaramam nee na ndax loolu lislaam wax na ci dara walla déet. Xasan li ci lislaam di wax rek day wax ne nañu laaj médecin. boo xam ne am na ca xam-xam lool te ragal na yàlla su fekkee jëfandikoo garab yooya mu yokk yaramam wi du ko bijjal jàngoro ci lu teew du ko bijjal ak wéré di muy jàngoro tamit ci luy ñëw si kooka charia danay wax ne dara nekkut ci ndax nit ku ne wattu sa wërgu yaram farata la su fekkee nag médecin bi seet na ko ne loolu daal su ko jëfandikoo yee foog mu def effet ci yaramam ci lu teew wala loo xam ne luy ñëw la ah, loolu laa gën a foog ne moom lay doon kon nag charia day wax ne dafa xaraam ndax xasan nit ku nekk ki ko bind rek moo ko xam la ya'lamu man xalaqa wa huwa latiful xabir ni oto yu amee carte grise nga mën a xam ni kii cinq place la kii sept place la ni la jëm nit ñi tamit seen cadre yi noonu la mel eh, yow nag bu yàlla ne sept place nga nga bëgg a def sa bos trente place ngir bëgg client yu bëri si oto ba sax du la jig waxuma la boo nekkee nit ñi kon su ma ko doon tënk damay wax ne daal nit ku ne ni nga bëgg a toll ni la yàlla tollale moo ko gën hmm. ndax yàlla cadre bu ne xam na lim attan te noonu tamit la ko mooñaale bu la defalee cadre bu ndaw nga bëgg a jël marchandise moo xam ne ci yaram attan cadre ba mm. attanut ko da ngay mujj rek daas da nga ciy mujj rek maanaam am problème oto yi sax bu ci sept place nga ñëw mm. da ci def trente place <laughs> kon du sotti kon ni nga bëgg a toll ni la yàlla toll li moo ko gën a xasan mm. len li ñu mayoon ci waxtu jeex na lu ci leer yàlla la lu ci dëndam gàtt xam-xam ak ñàkk fasaax la in uridu ila al islah mastataatu wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu wa rahmatullahi wa